fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di am mbégte di janoog yéen ci seen chaîne leader bi lee di Dakar Media euh, TV moo xam yéen ñu seetaan bitim réew ak biir réew sant ak ngërëm ñal na leen bu baax a baax ñu fas yéene leen nag digteel li nga xamante ni moom moo gën fës actualité ci li nga xamante ni rek moom mooy campagne euh, présidentielle yi ginnaaw rek élection yi ñu ngi koy amal le 24 mars bi di dimanche bi ñu jëm ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo nekk ci terrain bi maanaam les 19 candidats retenus par le conseil constitutionnel ñoom nag ñu ngi ci terrain bi def liggéey bu ama ama am solo waaye nag dañuy ñëw ci ki nga xamante ni rek moom mooy euh, abu benn Bengeloum kàddu yi nga xamante ni euh, yëkkati na ko ci Ousmane euh, Sonko ak ni nga xamante ni rek noonu la mbiram demee ak président Macky Sall moom nag analyse bu am am solo la def neen na moom pré moom euh, Ousmane Sonko dafa nekk ci kaso bi sax gën a am li nga xamante ni rek moom mooy importance parce que nag jàpp nañ ko tëj ko mais teewul même ci biir kaso bi sax les gens parlent de lui maanaam ñëpp dañ koy waxtaanee yaakaaroon nañu ne maanaam bu loolu amee sax. ne Ousmane Sonko day daal di fay mais nag dafa euh, gën a am doole ci analyse yu euh, Bengelum ci la ñu nekk ba tey tey euh, moom nag lim ci tegaat moom mooy même Ousmane Sonko en prison Macky Sall a besoin de lui pour maanaam mettre en place stratégie lu ci mel loi amnistie la ci aju ndax nee na nag bu ñu seetloo ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo am problème ak état ku ci mel ni Karim Meïssa Wade ak xalifa Ababacar Sall ñoom ñëpp maanaam lu ñu mujjee ñëpp gis nañ ko mais gis nañ Ousmane Sonko kaawam ak yeneen cas yi euh, c'est diamétralement opposé kon nag moom mun na jàpp ne Ousmane Sonko a le terrain Ousmane Sonko gagné lépp li xamante ni rek euh, maanaam nit ñi euh, ñu ngi ko doon waxtaanee ndax li nga xamante ni moom lañ ko doon jiiñ maanaam terroriste ak rebelle ak maanaam yi nga xamante ni limoon nañ ko fii yëpp moom moo ci maanaam moo ci gën moo ci bénéficié wu parce que nag voté fi loi boo xamante ni moom loi boobu couvrir na na ko ba mu nekk jamono ji en liberté ba mu ngi wëyal li nga xamante ni rek moom mooy campagne am waaye nag euh, ñu ngi xamal tey ci information itam moom président Macky Sall delloo na parti bi di euh, Pastef li nga xamante ni rek moom mooy euh, légalité ñoom nag ñoo ko tasoon par la ministre de l'intérieur bi nga xamante ni moom moo fi nekkoon mi Antoine Félix Diome ba ñuy annoncé li nga xamante ni moom mooy dissolution boobu les partis c'était le 31 juillet mois ginnaaw bu ñu arrêté moom Ousmane euh, Sonko euh, jàpp ni rek euh, moom mooy l'instigateur ci manifestation yi nga xamante ni moom moo fi amoon ci réew mekk la ci aju moom moo taxoon ñu daal di koy tas boobulee parti am ñu ngi xamal daal bu sukkandikoo ci information yi nga xamante ni rek waa seen café actu yam ko daal di xamle moom Ousmane Sonko delloowaat nañ ko légalité parti bi nga xamante ni rek moom mooy Pastef waaye jamono ji tembe Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni euh, moom mooy jomaa euh, Diomaye fay ñu ngi ci terrain bi nag euh, di def liggéey liggéey bu am solo ndaxte rek gis nañ fu ñu jaar ci Dakar ci Ziguinchor fi nga xamante ni moom mooy Bignona mbooloo bu am am solo bi nga xamante ni rek moom moo leen di topp te mbooloo bi boo ko xoolee ay xale kese ñoom ñoo nekk ci biir mbooloo bile waaye nag ñoom pig yi nga xamante ni ñu ngi koy lancé Amadou Ba ba tey rek ci la ñu nekk ndaxte rek moom Ousmane euh, Sonko kenn bëggul la tuddee ki nga xamante ni rek euh, moom mooy euh, Amadou Ba nee na Jomaay bokkul ak kenn bëggul mi nga xamante ni moom président Macky Sall daf ko tànn ba noppi te ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk biir APR kenn bëgg ko waaye nag moom Jomaay maanaam dañ ko soisir mu nekk nag candidat boo xamante ni maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo tafu ci moom kenn xamul nu mu toll ba tax na rek yëkkati na fa ay kàddu itam daal di tontu ñi nga xamante ñoom ñoo doon wax naan Casamance ay rebelle ñoo fa nekk ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ni ñu ngi ko doon dégg ci ñoom nee nag Casamance dëkk la boo xamante ni euh, maanaam lépp nga fa nit day jóge ci àll ba sax ñu may la soxna jox la suuf soo bayee kon ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo naan euh, Casamance ay rebelle fa nekk loolu dara amu ci mu mel ni rek moom Ousmane Sonko mu ngi tontu ki nga xamante ni rek moom mooy Cheikh Yérim Seck ndaxte kàddu yooyu ci moom lañ ko doon déggee waaye nag déclaration bu am solo Bassirou Diomaye Faye daal dina koy def nee na nag moom ay loxoom ay loxo yu set la 15 ans la def fi nga xamante ni moom mooy impôt de même comme ni ko Ousmane Sonko doon waxee ci ay discours am mais mosul laal musul takkee ci lenn loo xamante ni rek ba la ci alalu euh, réew mi te pare na pour def euh, déclaration de patrimoine maanaam wax li nga xamante ni noonu la alalam toll ci réew mi te nag mu ngi ciy woo ki nga xamante ni rek moom mooy amadu Ba nee na nag Amadou Ba bu fekkee li nga xamante ni mi ngi koy wootee dëgg la na génn def li nga xamante ni rek mooy euh, déclaration de euh, euh, patrimoine ñëpp xam Amadou Ba alalam ci naka la toll moom nag defi boobu la ko ki nga xamante ni moom mooy Bassirou Diomaye fay daal di lancé waaye tey nag am na ay vidéo yoo xamante ni mi ngi circulé ci TikTok bi ñu bëri ñu ngi naan kër amadu Ba dafa am li nga xam ni moom mooy ascenseur waaye boo xoolee vidéo bi nga xamante ni viral na actuellement gis nañ ko moom ci biir këram mu génn ci li nga xamante ni rek moom mooy ascenseur am ñu bëri nag ñu ngi naan Amadou Ba na génn euh, maanaam def li nga xamante ni rek moom mooy déclaration de euh, patrimoine comme ni ko euh, ki nga xamante ni rek moom mooy Jomaay daal di waxee ginnaaw rek tout accusation yi nga xamante ni porté nañ ko ci moom ci rek maanaam da doon def ay mbir ci suuf foofu nga xamante ni rek moom mooy impôt et domaine waaye nag ki nga xam ni moom mooy Mame Boye Diao démb fële ca Sen TV daal dina ci àddu bañ ko posé ci boobulee question li moom nag maanaam lu factuel ci lay jugé waaye nag du jugé loo xamante ni rek naka su dul noonu la bu fekkee Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni moom mooy Bassirou euh, Diomaye fay am nañu li nga xamante ni rek moom mooy euh, preuve ci fee yooyu nga xamante ni ñu ngi koy jiñ Amadou Ba nanu ko euh, génnee waaye Amadou Ba kàddu yi nga xamante ni moom la jëkkati daal di koy tontee ñaari candidat yooyu bu Pastef mu Sonko ak ki nga xamante ni moom mooy Bassirou Diomaye Faye nee na nag du tontu ñi nga xamante ni rek ay aventurier la leen tuddee ay incons conscient ba pare na dañoo incompétent li nga xamante ni rek moom la ñu bëgg ci réew mi maanaam seen objectif du leen rek lu dul euh, déstabiliser li nga xamante ni rek moom mooy euh, euh, Sénégal ndaxte rek li nga xamante ni ñu ngi koy teg ci ndoddam amuñu ci benn preuve boo xamante ni rek mun nañ ko teg ci table bi waaye ki nga xamante ni daal moom mooy Jomaay ak usmaan Sonko ba tey ñoom baaraamu tuuma boobu nga xamante daal ñu ko doon jiiñ ki nga xamante rek moom mooy Amadou Ba tey lañ ko ko euh, gën a jiiñ waaye ñi nga xamante ni itam ñoom ñoo ànd ak Amadou Ba yëkkati nañ ay kàddu teg ko ci usman Sonko ak ki nga xamante ni rek moom mooy Bassirou Diomaye fay nee na nag li nga xamante ni moom mooy difama diffamation ak euh, euh, euh, sos ak la ca aju loolu histoire d'amour la ci ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko ndaxte li nga xamante ni waxal na ko Amadou Ba waxaloon na ko fi ay nit te bañ ko yoon tegul benn preuve ci table bi kon jàpp na ni politique la ñuy def mais lu ñuy wax dara tegu ci waaye nag ñu ngi wax naan Amadou Ba ci sondage yi nga xamante ni waxoon nañ ko lu yàggul. Euh, dara que ni rek sondage yi euh, maanaam baaxul ci côté waaye nag li nga xamante ni moom la ñuy gis actuellement ci terrain bi ci li nga xamante ni moom mooy semaine de campagne euh, bu Amadou Ba gis nañ fi nga xamante ni jaar na fa fépp ni nga xamante ni rek noonu la ko mbooloo mi di toppee fi nga xamante ni moom mooy Tambacounda te mu fekk fa Sidiki Kaba gis nañ tam mbooloo bu takkoo takku bi nga xamante ni daal ànd nañ ak ki nga xamante ni rek moom mooy euh, amadu Ba ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, campagne yi en tout cas mu nekk loo xamante ni daal euh, doy na waar ñu ngi doon wax naan sondage yi amadu Ba mënul sax am li nga xam ni moom mooy 15 pour cent mais jamono ji ni nga xamante ni noonu la mbir yi di déroulé pas surprise du am question boobu la ñëpp di posé ndax gis nañ mbooloo bi takku takku bi nga xamante ni rek mu ànd ak ki nga xam ni moom mooy Amadou Ba. ñu jàll ci candidat yi nga xamante ni lim nañ leen ñu gën leen a gis ci terrain bi actuellement muy Déthié Fall Thierno Alassane Sall Diomaye Amadou Ba ak ki nga xamante ni moom mooy Anta Babacar Ngom Aliou Mamadou Dia Malick euh, gàkku ñoom daal lañu gis jamono ji ci terrain bi euh, lu bare bari ñuy def euh, campagne présidentielle mais ñeneen ñi daal mu mel nii li nga xamante ni daal moom mooy plateau de télévision yi la ñu gën a euh, viser te li nga xam ni moom mooy élection terrain bi lañ koy euh, gagné mais pas li nga xam ni rek moom mooy plateau ba question yi nga xamante ne lu ñu bëri di euh, posé mooy yenn candidat yi nga xamante ni jàll nañ ci parrainage ñu bëri ñu ngi naan naka la ñu def ba jàll ci li nga xam ni rek moom mooy parrainage parce que gis nañu maanaam bu ñu génnee di def seen campagne mbooloo sax duñ du leen topp maanaam boo compter euh, ñaar ba ñetti nit ñoom ñooy nekk euh, ci seen euh, ginnaaw waaye nag ñu ñëw aussi ci Thierno Alassane Sall moom itam mu ngi amal liggéey bu ama am solo ci li nga xam ne rek moom mooy terrain bi waaye gis nañ euh, sortiem bi euh, passé li nga xamante ni rek noonu la ko euh, xale yi doon sonkorisé maanaam fu mu jaar rek gars yi di yuuxu sonko sonko sonko waaye lu ni mel nag moom moo dal ki nga xamante ni rek moom mooy Lat Diop moom Lat Diop nag ñëpp xam ko ràññee ko fi nga xamante ni moom mooy géejawaay nekk koo xamante ni rek jeunesse bu géejawaay jox nañ ko bopp lool lool moom Lat Diop ndax rek jàppale bi nga xamante ni daf leen ko doon jàppale ci waa wàllu liggéey ak la ca aju mais gis nañ vidéo bi nga xamante ni rek moom moo viral à travers l'internet euh, gis nañ ñi nga xamante ni noonu la doon jéem a ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy jeunesse bi waaye gis na tamit ni nga xamante ni noonu la ko jeunesse bi euh, daal di tontoo ak di ko sonkoriser naan ko sonko rek lañuy ñuy euh, topp loolu nag tax na ba merloo ki nga xamante ni rek moom mooy Lat Diop ba tax na mu yëkkati ay kàddu yu ñagas a ñagas duñ ci jaaraat teg ko ci deru ki ki nga xamante ni euh, moom mooy usmaan Sonko ak ki nga xam ne rek moom mooy euh, euh, Bassirou Diomaye fay mu mel ni daal moom daje boobu nga xamante ni woote woon na ko fële nga xamante ni rek moom mooy Géejawaay daf cee lajj-lajj bu am solo ñu ñëw aussi ci li nga xamante ni rek ay rumeur la ñu ngi koy dégg ni ki démb ci ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany di leader bu gëm sa bopp ak ki nga xamante ni rek moom mooy euh, Youssou Ndour waaye nag dañoo wax ni que ñoom ñaar dañoo rejoindre li nga xamante ni moom mooy euh, coalition euh, Diomaye président waaye Gueye l'original bi nga xamante ni rek moom moo ànd ak leader bi di Bougane Gueye Dany nekkoon délégué national bu gëm sa bopp moom nag indi na ay leeral ci li nga xamante ni rek moom mooy yooyu les rumeurs nee na nag di lu ni mel. dara du ci euh, dëgg maanaam Bougane gi dani euh, seen euh, leader waxagul kan la war a jàppale ci li nga xamante ni rek moom mooy élection yu ñu jëm te bis bu waxee rek ñoom bu soobee yàlla nit ñi dinañ ci jot te ñoom moom rek la ñuy déglu fu nekk nii ci li nga xamante ni rek moom mooy. boobu lee annonce ki nga xam ne tam moom mooy Youssou Ndour boobaak léegi ñu ngi wax naan dafa rejoindre euh, coalition Diomaye euh, président euh, pour le moment daal ñaari information yooyu dara nekk gu ci dëgg ñu ngi xaarandi fii ak fan yi avant ñoo dem élection ba xam rek ban décision ñoom la ñuy jël ci li nga xamante ni rek moom mooy présidentielle yi. ñu ñëw aussi ci ki nga xamante ni moom mooy Françoise Hélène Gueye moom nag Françoise Hélène Gueye ñëpp xàmmee ko wala ràññee ko lool ci. défendre euh, li nga xamante ni rek moom mooy euh, àq ak wareefu euh, jigéen nekkoon tam défenseur bu ki nga xamante ni rek moom mooy Adji ci problème am moom ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ginnaaw bi ko jiiñee li nga xamante ni moom mooy viol keroog nag ba ñu libéré ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko moom Françoise Hélène Gaye nag daal dinay bind ci page yu Facebook am li mu xam ne rek moom mooy bu fekkee rek moom Ousmane Sonko tey libéré nañ ko moom nag jàpp na ni ànd en âme et conscience que ni rek Ousmane Sonko moom moo amoon euh, dëgg ci li nga xamante ni rek ñu ngi ko ko doon euh, tuumaal euh, boobaak léegi waaye nag nee na moom heureusement que xeex bi nga xamante ni daf ko doon xeex daf ko daf ko basé woon ci ay principe ak ay gëm yoo xamante ni rek moom daf koo amoon ci combat yi nga xamante ni daal mi ngi ko doon mëne mu mel ni rek moom François Hélène ci boppam dafa mel ni kuy baalu àq Ousmane Sonko indirectement waaye tam ñëw na ci candidat yi nga xamante ni rek ñu ngi leen di attaqué physiquement ku ci mel ni basiiru Diomaye fay que physique ñu baree bari ñu ngi ci euh, duut baaraam moom nag jàpp na ni lu ni mel waruñu ci euh, attardé wu ndaxte rek euh, nit sàkkul boppam ku doon sàkk boppam rek yaay gën a jag ci àdduna kon nañu bàyyi li nga xamante ni rek moom mooy futilité yi nga xamante ni ñu ngi koy wax boobaak léegi moom Françoise Hélène daal loola daal di bind ci page Facebook am mais combat bi nga xamante ni moom Moustapha jaxate lancé na ko aar suñu doomu réew ndax nag moom d'accordul benn yoon ci loi amnistie liste bi d'accordul benn yoon ci Ousmane Sonko ak libération bi nga xamante ni rek may nañ ko ko moom ak ki nga xam moom mooy euh, président euh, euh, Macky ni moom président Macky Sall dafa war li nga xamante ni rek moom mooy sénégalais yi li nga xamante ni warloo woon na ko ak sénégalais yi daal moom yàq na ko ci li nga xamante rek jël na ko comme décision ba tax na rek nee na moom combat bi nga xamante ni daal dëgmal na ko mu ci woo képp ki nga xamante rek patriote nga nga adhéré ko moom François adhéré na ci boobulee euh, combat nga xamante ni Moustapha Diakhaté daal dina koy lancé waaye nag ñu ñëw ci ki nga xamante ni moom mooy euh, Maty Trois Pommes moom tamit def na annonce bu ama am euh, solo nee na moom ñëpp xam nañ ni combat wam du lenn rek lu dul xeex ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko waaye nag am na lu bari loo xamante ni kenn du ko wax ci li nga xamante ni rek moom mooy Facebook am waaye annoncé ne que rek mission fii lay jeex maanaam pare na ci li nga xamante ni rek moom mooy live yeeg ya ca aju yi nga xamante ni rek mi ngi ko doon uh, def nee na désormais moom day occupé ci li nga xamante ni rek moom mooy ay activité mission moom daal jeex na ci li nga xamante ni rek moom mooy combat yi mu doon mëne ñu ñëw aussi uh, ci daje bi nga xamante ni moom moo am ci diggante uh, ñaari candidat yi muy Khalifa Ababacar Sall ak ki nga xamante ni moom mooy Euh, Amadou euh, Ba ñoom nag ñu ngi daje euh, dimanche fi nga xamante ni rek moom mooy ca Sare Bassi nekk ci département bu Vélingara gis nañ nat ñaari candidat yi ni nga xamante ni rek noonu lañ doon accoladante maanaam daal wanewuñu benn signe de violence wala li nga xamante ni rek moom mooy ca aju maanaam acte bu nice la gars yi wane ca lieu boobu noonu seen ay militants sax dem nañ bay nuyonte mu ñaari leader politique yoo xamante daal wane nañu comportement bu exemplaire noonu la ko yéenekaay bi euh, euh, euh, bindee maanaam daal wane nañ bon exemple par rapport ak yeneen candidat yi jamono ji ni nga xamante ni rek noonu la nii Euh, euh, campagne ñu ñëw aussi euh, wala ñu tëjee sax ak ci ki nga xamante ni rek moom mooy Outoumane jaañ moom Outoumane Diagne nag ñëpp xam nañ ko ci mafia kàcc kàcc moom nag ginnaaw bañ ko convoqué dig ba mu ko convoqué ci la daal di échappé wu kenn xamul woon fan la nekk mais ñu ngi xamal ni daal moom Outoumane Diagne jamono ji génnaat na ba li nga xamante ni rek moom mooy caravane bi nga xamante ni Sonko ak Diomaye ngi koy amal jamono ji ci euh, région yi def li nga xam ne moom mooy seen euh, campagne euh, gis nañ ko ci li nga xamante ni rek moom mooy yooyu les convois ñu ñuy xamal ni daal loi amnistie bi ci boppam nag moom tamit moo ko daal di couvrir ba retrouver na li nga xamante ni rek moom mooy liberté di leen jox dig daje incha allah très très prochainement ci yeneen actualité si la portez-vous bien merci